Ah. waaw. waaw sëñ bi rek kay sëñ bi de. bi rek mooy sëñ bi. cey mooy kenn koo xam ni. Hmm. amul morom. cey maanaam amul morom bu ko waxee mooy loo xam ne mësta am. Hmm. ba tàmbalee ci aada mu njëkk ma. Hmm. mu sëñ Tuubaa mësu ci am. ba ci Moustapha. ba tàmbalee ci Moustapha ba kër nay dukk sëñ dootu ci am. ndax sëñ Tuubaa dafa xam ne illa yaxaadallahu xilmal awliya kal anbiya wa rusulihi fi naydiya. cey mboolem xam-xamu wàll yi yàlla jox na ma ko lu wàllu yu mas a xam rek yàlla jox na ma ko ñu ni war yu yëpp mu ni déedéet talan bi yaa ak yonente yëpp lan xamoon man la ko yàlla jox ma indaale ñu ni yonente yi kat mu ni warus lii ba ca ñeen yónni sax kon Moustapha génn ci ñoom ñëpp lañ xamoon dama koo boole téye ko man door a ñëw hmm. kon moom foofu rek dal na fii jiitu ñëpp hmm. li tax amul moroom it mooy hmm. li ñëpp am nga xam ne nit ñëpp lañ koo amoon ba japp ni ñoña amul morom mhm. señ bi da ko am ba lo door sey waji de di ñepp am mhm. nga xamni ku ko massa am da ngay di bokk ci uur bi amut morom mhm. señ mom da ko am ba noppi waajee ko takku illallah ndax mboolem nit yalla yi ngi fi deg waaw kenn ku ci ne jant bala suñu borom takkale ndom ak xutbu samaan wala xaw samaan bakku nga ba ko yalla gep yek ni bakku nga sama nguru gi gëna a nguru ak yalla ak wala yu joggi naa waaw sëñ Tuubaa nag loolu da koo am ba yàlla jox ko ko mu wóor ko ni moo ko am mm. ko lii baax na waaye damay takku laxasaay mm. suñu borom ni ko bisimilaay mu ne laxasaay gi may takkat du am fu muy yem yàlla ni ko nooy def mu dal ni salal tuhaabi dan mm-hmm. xaddi man bi dalil min xaama ay sachin ilahaamara in yàlla kat teral nga ma am li ñëpp am waaye damaa takk laxasaay goo xam ne bala ma koo tekkiwaat dañoo taxañ dénd bi yàlla ni ko itti ji de xam naa ko waaye ak pas-pas bu rëy bi mm. waaye Moustapha moom dangaa fekk ma ni moom la ba noppi kon da ngay jaar ci moom bu la indi rek loo bëgg ma defal la ko fekk Sëñ Tuubaa moom xamante woon ak Moustapha bu yàgg ca asal ndax ba yàlla bindee ruwee te bindagul jëmm yi ni Moustapha yaay ngeen ji mbindeef ci la Sëñ Tuubaa jóge tàllale la loxoom ni ni Moustapha gannaaw yaay ngeen ji mbindeef yii moom maa la ko war loolu ni yàlla Moustapha mii lu mu nar tawat naa ko tawat lu mu nar a tuur ci deret naa ko tuur ci deret dam mii fidaa un hmm. li xuruuji dammihi waaye wamaradi fidaa u loolu kenn mësu koo defal yeneen amul mu ni ko ci ngay yem mu ni ko déedéet mhm. bu naree dem àddina ay dig di ko jam wala jiit di ko fecc day metti nooy def mu ni xaddi wiqaayatin li rajlil mujtaba min sawkati nu maayu daaha axraba sama bu leex ngay teg ci ndëggul tàgg fen def la ko naree tey jam jam ci man eh, mel na ni kon koo defal loolu te dara xiwut buñ la ko tegtalee boo ca dee dem du jafe mhm. waaye Sëñ Tuubaa ci teggi na mu wër Mustafaa nee na ba fekk ko na fi daw si mu tëdd mhm. Sëñ Tuubaa yee ko wax ak moom la mu waxoon ak yàlla antal karimu anta yow mii ci njawaat gi alkarimu Moussa mm-hmm. ni ñokkeel mu ne ko annal xadiim mm-hmm. maay aji liggéey ji mm-hmm. ni ba ta ma at saay juróom benn da koo xàcc digg waaw Moustapha ni cëpp sëñ bi tàmbalee ak moom di sëñ Tuubaa wax yonente bi ko kenn ku mas a wax yonente bi lu mel noonu mësta am ci àddina amut amut hmm. waxi gaay yëpp yëpp laa la wax waxuma jaalibatul maraaxib ak bish rek nuuru daari neg yooyu yëpp waxuma ko waaye buntu bu muxaddimaat rek eh, bam ba ca kee nuun ga képp buñ ko jëloon teg ci kaw taabal ji la bayit yooyu doo gis mukk ko wax yonente bi lu ko neexe noonu nabiyun rasulun hmm. hmm. xayru xabdin wa sayidun xalilun xabibun misluhoo ليس يحلن نجي آه. خريب ساكر وهو ساكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح وهو مصلح بصير لمن لله بالأق يتئن نبي أديب سوء يائن محسبون نسيرون لمن بالكفر وسرك <laughs> يحلن نسيء بلا قس حليم مهلم سقي بلا من كلاما يلين نجيب حجيب ناسب وهو ناسك هو الآمر ناهي لسقي دقل ورب سنتو بانينا ماك يوننتبي يوننتبي تيم لم يرون ديما كو جوخ moom la waxoon suñu am satu jaxat ni ko am satu mu ni ko mbàkke mu ni ko seen waa ji ko ànd ak moom am xelam war naa dal ndokk bañu ànd ak moom suñu am satu ni ko waaw mbàkke mu ni ko maa njëkk a yéege yàlla njëkk a yéege yonente bi maa ah. njëkk a yàlla yéege yonente bi sii hmm. ci naka nee na ba may wax yonente bi loolu yonente bi damay jox di ma jox di ma jox di ma jox ba ba nu waar gam kees caisse gam doon fayee gaa yi jeex yonente bi xëcc kees nu am suñ tubaa ko tagg mu di ko jox ba loolu yox yonent bi di ko ahmadu yow daa mel ne doo doyal taman damay jeexlu waaye kaay mu yóbbu la ci yàlla mi dul jeexal mu ba ci suñu borom mm. ban yéggee ba ci suñu borom it boobu jotaay a am ci àddina kenn mësta am yàlla mm. bu doon état juróom ñi gën a for bokk mm. wa min si tànn ci la bokk ah. waaye keroog bam ne yàlla ari nii yàlla dani ko lantaree Hmm. ndax walakin unsuri ilal jabali fa in istaharra makaanahu fa sawfa tarini fa lama tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa xara Muusa sayyiqan fa lama afa qaala soo tubtu ilayka wa anna awwalul hmm. bi nag nee na man damaa toog hmm. yonente bi toog yonente bi jàpp ci sama loxo nii naan suñu borom teralal ma ahmadul xadim talabtu min mukarrimin mukarrama kawnahuma lakum wa kawni lahuma wér na coy suñ tuwaa ko bind wér yo yàlla di ma teral di ma teral ba jataay booba jeex yàlla ni Moustapha loo mu ni ko garaatu nu bugo bii ma yoroon mu ni ko jox ko ko la ilaha illallah Moustapha ni sumbin manto bi jox Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa téye ko ci loxoom xool ko yem ci Cheikh Moustapha Karim jox ko allahu akbar taaw borom daal xuddoos borom daaru xuddoos mais moom la ñu naan rasoolu mii doon xalifa xaadimu rasoolu mais Moustapha xare bu yoon walee taxaw Moustapha taxaw bu yoon wi lee taxaw mais Moustapha sancuk tayif ca Makka uh-huh. mi Moustapha sancuk tayif fi Mbàkke mais Moustapha Aminata di way juram uh-huh. mi Moustapha Aminata di way juram mm. mais Moustapha moom way juram daa gàtt fan Moustapha moom way juram daa gàtt fan su ëllëgee ku gis ma le doo gis mi le naa seeru mi moo gën joon lay gis eh, tegal sa loxo foofu ñu ñëw laa <laughs> ilaaha illallah ah baylaat ah,